salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ah ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci sangu-sang yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen di leen ziar bu baax a baax a baax tey nag ñu daal di ñëwaat fii nga xamante ni mooy jarabu couture jarabu couture nag euh, defe naa ni du gan ci yéen ki ñuy dalal tey kooku mooy Aïssatou Fall ñu gën ko xam ci Aïda Fall jarabu couture ñu ñëw nag tey ginnaaw bi ñu amee benn xew-xew boo xamante ni mu ngi koy ma kooku di ay Aïssatou Fall muy euh, festival international bu ñu war a def fële ca Bénin mbokk yi ngeen topp ma rek ñu daal di xool tey Aïssatou Fall nan la toogee. waaw ñu ngi nii nag jëm ci Aïssatou Fall Diallo bi ñu fas yéene tey waxtaan ak moom muy ndaanaan bi nga xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci diwaanu Thiès salaamaaleykum Aïssatou Fall Jarabi Couture na nga def mbaa yaa ngi si jàmm alors tey nag waa Thiès info ñëw la seet si waat defe naa ni doo gan ñi ñi ràññee nañ la ci jëf bu baax yi nga xamante ni yaa ngi koy def fii ci diwaanu Thiès ñu fas yéene nag tey euh, amoon benn euh, festival mag boo xamante ni yaa ngi koy préparé ah muy muy war a xew fële ca Bénin nga fas représenté suñu réew ñu fas yéene tey rek daal di ñëw waxtaan ak yow festival boobu naka lay demee. waaw merci beaucoup euh, maa ngi leen gërëm di leen sant yéen waa Thiès Info yéen ñi nga xamante ni yéen ñu fekk ma tey euh, di wax ci actualité yi nga xamante moo xew ci Sénégal. donc lii dafa rafet ma leen di dalal ak jàmm di leen wax ngeen egg si jàmm loolu dinaa ci sawar pour waxtaan ci. dëgg la fierté la toujours rek ñu lay dalal ci suñu émission macha allah. mbokk yeeg xarit yi comme niñ leen ko waxee sànq rek ñu ngi nii toog ak Aïssatou Fall nekk euh, Jarabi Couture ñu gën ko xam ci Aïda Fall. tey nag Aïda li ñu yëkkati woon mooy dañu dégg nii yaa ngi yaa ngi waajal festival international bu mag festival ba nag ñu ngi koy defee euh, Bénin nga fas yéene représenter suñu réew en plus de ça aussi Sénégal nekk invité d'honneur ñu am ti mbégte lool lool lool lool ay dañu lay laaj rek tey ginnaaw boo nuyoo mbokk internet yi ñuy seetaan ba pare ñu lay laaj tey festival boobu naka la demee ak nan nga def bu bokk ci festival bi ak it bu ñu la ko waxee lan nga yëg Wow, assalamualaikum buat Senegal, assalamualaikum buat Chess. man Aïssatou Fall seen doom seen sen seen sen seen sen seen lépp maa leen di nuyu di di sant eh, di rafetlu lo ñëw gi ngeen ñëw fekk si ma fii pour wax festival binga, nga xamante ne ñu prepare. Mudah préparé eh, mu doon lu ma neex eh, lu ma lu ma kontaan wax dëgg fa neex yàlla parce que lii dafa jara wax jara wane ah. ndax mënuñu di liggéey ci mode bi vraiment bay toll ci yenn étape yi te te te wanewuñu ko wala waxuñu ci kon boo leen jógee yëg ko dox ci wax ci ñëw seetsi ma fi dama ci am fierté pour wax ci waaw ñu ngi préparé festival du Bénin euh, mi nga xamante ne c'est du du 30 au 12 août 2018 di xewee ca Bénin donc ba loolu weesoo encore ñu def Sénégal invité d'honneur bi ñu ngi ci kontaan lool invité yooyu nga xamante ne def nañ ko invité d'honneur ñun ñu à particulièrement man ay satlu ma bokk ci ñi ñu sélectionné ñi ñu war a ñëw ca ca ca festival ba représenter le Sénégal ci suñu wàllu mode wàllu culture donc dama ci kontaan lool kontaan vraiment euh, tey jii am naa ci mbégte ci pour waxtaan ci yéen ba tax ne wàllu festival bi dama ci kontaan parce que liggéey bi rek moo ñu fa yóbbu ah moo ñu fa yóbbu ndaxte euh, buñ la sélectionné cela veut dire que sa liggéey am na ci tolluwaay bu mu nekk ndax ñoom xëy ñu xëy rek sélectionné nit euh, ci sa tolluwaayu liggéey si sa dimension wu liggéey ak si say activité yi nga xamante ne participé nga bokk nga ci ci yooyu la ñuy xool xool ko xool sa liggéey sa wàllu liggéey sa tolluwaay sa niveau ak yëpp donc ci lañ lay doog a sélectionné donc ma ci sant yàlla bu baax gannaaw ma ci sant samay ñaari waajur ñi nga xamante ne du ma ci taay di ci wax ñox ñoo ma jàppale euh, bu lekk lekkee alom naka gërëmee coy ñoom ñoo ma jàppale ñoo ma dooleel ba tey jarab bi mën a taxaw ba war a mën a bi war a mën a représenté waxuma national à l'international c'est une donc euh, ñu sélectionné ma ci man ak sama yeneen naataangoo Euh, am na ci kenn kuy jóge Louga am ci keneen kuy jóge Saint-Louis ñu war a dem taxawal Sénégal représenté yóbbaale suñu drapeau yëkkati ko foofu donc muy fierté di taxawaay gu am solo ñu di ko préparer nag ah préparer bu bu mucc ayib parce que euh, représenter sa sa sa pays ci beneen pays dafa doon loo xam ne du ay caaxaan ñu koy préparer bu baax ci loolu damay remercier sama président chambre de métier Amadou Makhtar Seye ndaxte lépp loo xamante ne laaj na ci administration bi rek mu ngi ci jàpp dox ci di ci wax suma ma defee lettre boo xamante ne maa ngi ko war dinañ ko vérifier xol lan mo ci bax lu ci bax lu ci bax ñom ñokay koy viser ko defar sen lettre bop tapé ko viser ko jox ma ne ma yóbbul vraiment dama len ci gërëm lu bari bari bari bari bari parce que je peux pas partir sans euh, à l'aval du président de chambre de métier parce que fa lañu ñu vraiment aussi tamit mënoon na cof yëf yi mais cofu ko moom da cee jàpp bu baax baax a baax a baax baax donc sur ça maa ngi vraiment maa ngi koy gërëm moom Amadou Makhtar ci nga xamante jàppale li ma jàppale ci wàllu festival bi nga xamante ne maa ngi ciy dem di ci loolu aussi ma ciy jàpp ma ciy gërëm euh, le directeur de l'artisanat euh, Makhtar Diakhaté Makhtar Diakhaté aussi moom it du sonn du taal yi ku xam artisanat xam ne secteur bu day waar bu doy waar bu doy mais tout le temps saa su ne dañuy ñëw di wax ak moom di jëflante ak moom yenn saa dañuy ñëw moment boo xamante ne duñu woote téléphone ah, dañuy ñëw secrétaire bi dañu laaj ndax da am rendez-vous dama naan ko non te daf ñuy recevoir dañuy recevoir laaj ñu lan moo lan moo ñu yëkkati ak lan la ñu bëgg dañuy def ba benn moment bu ko fa fekkulee sax secrétaire am yi dañuy recevoir jël suñu courier topp ko dox ko wax ko kon vraiment chapeau à eux vraiment chapeau. ñu leen di remercier di leen gërëm di leen sant. surtout li nga wax am na solo lool dañoo bëggoon xam euh, bi nga bi ñu la bi nga waree bi nga yëgee ni da nga war a représenter sa réew. ci dëkk bu ñu naan bene lan nga yëg Aïssatou ndax euh, du lu yomb ah représenter sa réew ñu bëggoon a xam lan nga yëg. biñ ma ko waxee dama kontaan ah parce que euh, affaire bi sélection bu gudd la te du benn rek la yema ah, togg moo ci topp. mille ans donc ñu nekk ci instant bi chemin boobu di ci dox dëgg euh, ma dama parce que c'est une fierté may dox koy parce que waxuma Thiès ah, parce que jëluñu sax Dakar Dakar amu fa Thiès moo fi am Saint-Louis ak Louga parce que dañoo xool liggéey bu rafet bi nit ñi nous ñu ñu ñu sélectionné nous sélectionné man à part je ma envoyé lettre ma répondre Je ci que len xam xamuma sax xamuma xamuma à travers ci je na rafet na fu muy dem fu muy dem donc à chaque fois dañuy battre ci suñu secteur di dox di wax secteur comme ni koy waxee saa su man secteur culturel secteur mode secteur artisanal nga ko xamee nga ko xamé sa su né ma ci dox di ci wax kon buma démé nga xamante jël nañ ma à travers à l'international ma ñëw représenter sama dëkk muy Thiès bi ma am daf may def neex fierté ma ci kontaan trop trop trop trop comme ni ma la ko waxee ndaxte en général festival yi bo xolé bu njëkk ba daa xalé yi daanuñu ko ñëmé ñemee daanuñu ci participer daanuñu ci bok mais monde bi mo évoluer mu changé euh, ma ci remercier de passage ñu mel ni ay Juma Jeng Jaxate Juma Jeng Jaxate ku ko xool xam ne yóbbu na mode bi fu ne macha allah fu ne la ko yóbbu fu ne fu ne dem na ba présidente président réew yépp ak seen i jabar ñoom ñëpp moo leen di ñawal ak ñeneen ak ñeneen parce que toujours monde dafay représenter dignement notre pays ba tax ñu koy woowee ambassadrice amul festival bu ñu ko invité wul amul festival bu mu demul amul programme bu mu demul amul foire internationale bu ñu ko invité wul su loolu weesu nga xool Collé Ardo Sow Collé Ardo Sow moom it ah xoolal Sadia Gueye Sadia muy femme femme bu dynamique bu jàmbaar kon ñëw Sénégalam ñëpp yëg nañ ko ba mu fi ñëw taxawal ak institution bi nga xamante ne mooy complexe Sadia ah euh, donc à l'international ñëpp xam ko di ci ñëw ah donc mais bu fekkente ne ñun ñëw nañ bay def relais bi sant yàlla la kooku alhamdulilah lañ koy wax donc ñun dañu ko war a mën a gën a rafetal gën a am ci dimension bu ñu ko yóbbu gën ci am taxawaay donc loolu la ma def fierte ma bu soobee yàlla ma ciy ñaan ci kàttanu yàlla yërmande ma ci màggaay jëmmi rasulilaay mu dooleel ñu taxawuñu ba ñu mën a taxawal suñu réew ci yeneen dimension ci yeneen yeneen moment yoo xamante ne vraiment dinañu romb ñooñu ñu ñuy tudd ñu nit ci ñi nga xamante ne ñooy représenté suñu réew donc bi ñu ma ko waxee fierté boobu laa ci am donc vision boobu laa ci gisee war a mën a taxaw sama réew euh, représenté ko ba suñu président son excellence kontaan ci ñun waaw li nga wax euh, kontaan nañ ci ñun itam en tant que doomu Sénégal fierte la ci ñun ndax am suñu doomu réew mu rawatina jigéen mu dem di représenter suñu suñu réew Sénégal ca Bénin loolu fierté la dañ lay ñaanal yàlla itam yàlla na yàlla yeggal lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bëggoon xam euh, ku ne xam na ni voyage dafa metti lu mel ni ay festival tamit dafa di gën a di metti est-ce que am nga ñi nga xamante ni ñoo la ci accompagner ci ci loolu est-ce que dem nga vers les gens en tant que nga nekk politicienne ci dëkk bi ñëpp xam la macha allah ngay def lu baax di ci wax est-ce que am nga ñi nga xamante ni jàppale nañ la pour pour voyage nga mën ci def waaw Kaja euh, dafa am loo xamante ne aussi euh, dinaa ci wax tuuti am na ci loo xamante ne aussi dinaa ci sori tamit ndaxte à travers loolu yëpp damay remercier suñu maire monsieur Talla Sylla maire de Thiès suñu culture lañu am suñu aada ak cosaan lañu am Talla la jàppale ñu ci loolaam bëgg suñu culture sacrifier boppam ndax Cees xeebul kenn amul xar ma yàlla ak kenn xanaa bañ ko fekk ci réew mi wante Talla Sylla événement boo ko woo man ci li may dox muy wàllu culture wàllu aada ak cosaan wàllu aar Ça, su ne ko ci gis il est présent te defe naa ne dañuy soxlo suñu kilifa bo xam day nek au présent ci li nga xamante mom lañuy dox monsieur le maire vraiment merci beaucoup ñu ngi ñu jàppale ci culture ak aada bi gis nañ ko merci beaucoup ca loolu ndax ñun saa su ne dañuy dox ci programme ak événement dañuy dox ci programme ak événement bu baax sax

dikk Ndiaye c'est une femme exemplaire comme ni nga ko waxee léegi nga ne may jigéen di représenter sama réew ñu liggéey rek lañu xam ba bu ñu gisee kuy liggéey dañ lay fan man Léthique Ndiaye daf ma neex dama ko fan at bi benn yoon laa koy gis waaw jàkkaarloog moom nii benn yoon mais saa su ne maa koy fekk ci acte yoo xamante ne euh, macha allah. dama koy fekk tout le temps ak di dégg di gis yoo xamante ne Ndeye Tické Ndiaye di ci def loxoom du sonn du tàyyi en tant que jigéen ci Thiès nit ki jarul nga di ko sonal di dem di ko gis wala di ko topp wala di non non non non non non nay ay acte am mu ciy def loxoom na ay dara am nit ñi am ci soxla wala yaakaar ko ci mu def ci li mu mën wala au minimum sax ku ko bëgg a gis gis ko boo ko woowee téléphone di nga ko jot ah. boo ko seeti ji tamit fekk ko fa c'est l'essentiel. ndax boobaa di nga xam lan moo nekk ci nit bi ak lu ko metti vraiment merci beaucoup Ndeye Tické Ndiaye sa taxawaay biir cees ñun acteurs culturels yi yëg nañ ko ah Siré Dia li ñu teg ci mbaggam dafa bari cees lu ñu jóg teg ko ci mbaggam kenn du Siré Dia jàmbaaru fal Fallou bo président Macky Sall ngi noonu ndaxte siraja dañoo bokk terrain bi lu ne siraja lu ne siraja siraja liñ ko yan ci kaw mbagam yi attanu ko cees moom rek newu fi te ñoo jël yépp yan ko ko siraja ji jàmbaar goo xam ne du xaddi du sonn saa su ne yaa gis iman gi ak yar gi tekkaaral gi musuma ko dégg fenn fu mu ñaxtoo musuma ko dégg fenn foo xamante mu ngi wax wax ju day saa su vraiment ma koy féliciter euh, taxawayam gi fi mu bi bi biir Thiès ndaxte su fekkante na man gisuma ko te koy gis muy jappalé ñeneen ak ñeneen acte yo xam ay acte concret vraiment c'est à saluer vraiment damay wax nak ne liñ ko tek ci mbagam yi dafa bari attanul lépp sëriñ dal mënu satisfaire li nekk ci sip dafa metti dafa metti amna ñeneen ñu fi tek war war waaw lu mel ni Habib Niang defe naa ne wax naa ko léegi Habib Niang Habib Niang di jàmbaar Ousseynou Diouf nu Diouf vraiment ba muy yëngoo ko léegi ban ministre la te dañ leen di toog di leen seetaan da leen toog di leen seetaan ñoom tànqaw luñu dara ci événement boo xam ne mu ngi am Thiès ñu war cee mën a jàpp saa su ne saa su ne dañ leen di fëgg

ndax Ousseynou jàmbaar la koo xamante ne nekk ci biir dëkk bi di ci dox di ci wax yenn saay bu ma amee lu ma metti sax daf may woo ne ma noo muñal garaaw dina baax mel ni sama nijaay euh, dem Omar dem Omar dem chef religieux saa su ne bu déggee ne maa ngi ci dara rek daf may woo téléphone dafa ne dama ne dompa sax ci sot la bokk woo ma téléphone di ma defan sax dina ma dina ma baax sax dal nag xel defe naa ne Omar dem da koy def da koy def di ma woo ne ma sama jarbaat dina baax jàppal dina baax góor góorgóorlu dina baax góor góorlu dina baax lépp dina baax dina baax may am soulagement xam ne dina baax xam ne ñoom lu ñu yoroon rek dinañ ma ko jox lu ñu mënoon dinañ ma ko defal wante de tant que ñu may bàyyi xel rek di ma ci jàppale rek loolu rek neex na ci xol ci ñi may gërëm ñëpp dama ci booleel sama bàjjan Adja a Samb may mun a sàmba ñun xale yi moo ñu tax a ñeme ndaxte bu ñu ñemee ci commencé ci foir yi yàlla ajaa may mun a sàmb la ñun ku ci ñemewul danaan la boo amulee bagage ñëwal ma jox la bu dee amoo xaalis kaay ma jox la loo manqué la mu jox la bu ñuy dem foir ay Burkina yooyu moom mooy mooy mooy toppatoo suñu lépp lépp lépp lépp lépp ajaamee kon bu ñu ñemee ajaamee mun a sàmb la ndax sàmb gudd fan ak wér rek lañ koy fekk ñun artisanal lu ne xeex nga ci lu ne def nga ko pour artisanal jëm kanam ah man de xam naa ci dara ndax man ku ma xàmmee xàmmee ma ci may mën a sàmb muy sama bàjjanu bopp ma bëggal ko sama bopp jàpp ko ndax ah su ma tolloo fii tamit da cee joué lu bare bare bare bare comme sàmb maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm tamit sama nijaay góor a aaj góor aaj mi nga xamante ne moo ne Sodida euh, yere fenaaf góor a aaj euh, képp ku nga xamante ne yow acteur de mode nga góor a aaj seetaanu la góor a aaj muy guddi muy bëccëg damaa wax léegi ne léegi fii ku fi doon dara da ngay demander audience pour mën koo gis ñun artisanat xam nga ñun dañoo féex ñun dañuy jóg rek fekk ji nit ki fëgg ne ko moom lañ soxla te bu ñu fëggee daf ñu ibbi téléphone bu ma ko woowee dafay jël ne ko ah papa góor a de suñu mbokk diw nii nii nii

téléphone bi amul heure saa su ne danga koy woo day décroché déglu la attentivement nga wax ak moom mun ne amul benn problème ñëwal vraiment nit ñu mel noonu lañ soxla fii nit ñu mel noonu lañ soxla fii Lamine Aïcha Fall nag comme ñu wax ñëpp xam nañ ne tëjalul buntu këram kenn ñëpp xam nañ ne tëjalul buntu këram kenn il est disponible à tout moment mën a déglu nit mën a bàyyi xel nit ah ñun de suñu secteur xam naa ne bàyyi nañu xel te ma defe naa ne comme ni ma la ko waxee moom laa am ku ko jàpp jàpp ma ku ko bàyyi bàyyi ndax saa su ne ci laay dox vraiment ñu mel noonu euh, su ma demee ba tollu fii dañ cee jàpp dañ cee jàpp lu bari Marème Diop si la def naa dañ na nit ki ci sa alal ngay baaxee ci sa alal tamit ngay bonee madame Diop si la résidence am bale mu yore à chaque fois dañuy recevoir fii ay experts ñu war leen loger ci ay hôtel loger leen nourrir leen pour pour car vingt jours vingt cinq jours koo loger nourrir vingt cinq jours dara dara la te madame Diop si la dafay recevoir suñu expert loger leen nourrir leen ci ay conditions yu rafet suñu expert di wax ne vraiment tey ngeen ñu ci ay conditions parce que moom la madame Diop si la dafay toppatoo suñu expert ba ñun dañuy kontaan te loolu dafay gën a développer suñu liggéey parce que ñooñu bu ñu demee compte bi ñuy def mooy tax ñoom ñu mën a dellu siwaat liggéeyaat beneen liggéey fii donc soutien yooyu da ci am solo donc mënuma woon ñàkk bañ a wax ci ñooñu parce que dafa am loo xam ne dafa am fu mu jóge ba tollu fenn fii fu mu jógee ba tollu fen kon ay Lamine Aïcha comme ni ma ko waxeel ay Habib Niang yaa ngi dégg ay Ablaye Dieye ah ay ay ay ay euh, Ousseynou Diouf comprendre nga ah le maire Talla Sylla mention spéciale ñooñu mënuñu leen bañ a tudd ay ndey tikka njaay nga xam ne suñu cérémonie dañ ciy toog ba mu jeex buñ ci gisee dara luñ ci war a rectifier woo

gisaguma kenn kenn koo xamante ne jóg na wax na dox ci festival bi te festival bi c'est un festival international Sénégal na xam nga lu ñu tàmm booy dem duñ la yëg wante boo ñëwee ñoom ñépp ne la kaay te ndeysaan ay waaye tukkee metti li ci war a fi tukki waxatuma la ñun festival bi ñu war a toppatoo yëre yi ñu war a yóbbu bagage yi ñu war a représenté yépp sans compter suñuy billet avion sans compter li nga xamante ne mooy argent yi war a yore argent de poche ah sans li nga xam ne suñu instant yi ñu war a toppatoo ah kenn daal waxu ci kenn doxu ci ah am na ci koo xamante ne nag comme dama koy wax chaque jour Cees bu meloon ni mu war a mel nit du jóge ba Dakaaru Njaay di ñëw fii ci Cees di am lu mu fiy doxal muy Ousmane Usman Ndoye gàcce ngalaama man de luma nek nekk moo comme ni la koy chaque jour man Usman Ndoye mo mu dugal ci politique ne day jappale son excellence ma jog jappale ko fuma xamne warna ne dugg wax fa pour suñu président élire ko maa koy dox diko wax lepp ak jëmi Ousmane Ndoye parce que daf ma motiver nak luma nek Ousmane nga ca lu may wax Ousmane Ndoye nga ca festival bi moo ci njëkk taxaw di ci dox di ci wax wante lépp mënu koo yanu léegi Aïda yaakaar naa ne message bi jàll na am na solo mais ginnaaw Ousmane Ndoye mi ngay tudd est-ce que yow dem jóg nga soo sa daal dem ci ñeneen ñeneen ñi pour ñu pour ñu jàpp ci festival bi. Euh, Kaja xam nga ne lu toll ni festival ñu yónni la ay seeni lettre révitation

c'est dommage kenn mënu leen gis kenn mënu leen gis xaw ma seen courrier yi ñoo dul egg ci ñoom xaw ma nu mu demee mais dangay dem di matin au soir di dox ba sonn jël sa oto def ci essence di wër tuuru 15 jours doo ci gis kenn est loolu neex na ci xol amul kenn koy woo téléphone ba mu wuyu la amoo kenn koy seeta ji ba mu recevoir la dafa jàpp xaaral néew fi nii naa fa lañ koy jàpp ak yow ñi ma mën a woo woo naa leen ñi nga xamante ne ñi nga xamante ñoom ñooy ñoom la ñu bàyyi comme seen attaché seen wet ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di euh, jox compte rendu yi ñoom ñëpp gisante naa ak ñoom mais toujours xaaral ne euh, DG fi xaaral ministre bi néew fi xaaral kii bi dafa génn xaaral dañ lay xaarloo di la jaabanteloo di la jaabanteloo Dakar Thiès dafa metti Thiès bu ñu ñëwee fi kenn am koo ci gisul samedi gisoo ci vendredi dootoo ko gisati te bu eggee Dakar mënoo ko jot comment faire man nag Thiès nag nit ñuy dundee man jaaxal nañ ma parce que mënumaa d'accord ñu ne dañuy liggéeyal président ñu ne dañoo bëgg dëkk bi développé ñu ne dañoo bëgg nit ñi xam lan le président def ci c'est pas normal Le secteur artisanat bii mooy affaire bi informel bii mooy affaire bi mooy affaire bi dama koy wax saa si ne tay du ci ko wax ndaxte dama ci xam dara dama liggéey ci développement ba tourné continué dugg ci politique bi di ci liggéey di dox ci nit di wax di ak di di xam ci xam ne jàmbaar yaa ngi nii ñoom ñooy électoral yore seen carte war a jàppale nit ñi te kenn ñu leen di négligé ndax mënumaa comprendre man la may ñeme loo am loo ma fit ba tax na ma jàpp rek muy metti ma jàpp rek continuer ba war a mën a di assister ci ay festival di assister ci ay foire international di assister ci yeneen euh, wàllu culture bi ci mode bi ci ci ci défilé yu mag yi ba mën a am yenn visibilité yi ba nga xamante ne ñoom ñu war maa mën a sélectionné ci festival yi def naa ne buñ ca jàppee ñeneen ñi mel noonu te jarut a kenn du leen may xaalis soutien bi tuuti rek la mais mënumaa comprendre boo dee défilé imagine pour nga def ak sa collection xaalis la c'est de l'argent dangay pare toog pour mën xalaat. sa xel mi di def saa su ne lan laa war a mën a créer ci lan laa war a mën a génn ci lan laa war a mën a taxawee lan laa war a mën a def mu neex nit ñi lan laa war a mën a def mu génn nekk à la mode ci loolu yëpp war ngaa mën a jël sa temps tamit di topp ay ay ay ay ay ay homme politique pour lan ñoom ñoo waroon dugg sur le terrain xam tuuti dama ne fii loo fi xeeb xeeb sama si baax fii loo fi xeeb xeeb sama seen xeebaate gi ñuy def nag moo waral duñu dem moo waral duñu dem parce que nag di nga xeeb dara mu mu mu doon sa musiba xeeb lu la waroon a jëriñ parce que fii ñuy développé dëkk baa ngi fi te kenn xamu leen kenn faalewu leen dadul yoon du yoon benn ci man man maa ngi nii ci politique bi maa ngi man waruma woon def di festival di dox li may dox gisuma benn politicien bu ma jàppale te pourtant am na ci ñoo xamante ne waroon nañ maa mën a soutenir lu toll ni festival ngay génn ci à l'international mu laaj des ay millions nga war ko cee def ñu toog di ma seetaan cundung ay benn benn nit ñoo ci def li ñu mën lañ koy gërëmee dinañ ko sant ndax xeebalu ma leen ko lu dëgg ñu ne dañuy jàppale président xale yaa ngi fi di def ay défilé de mode yu am solo di taxaw taxawin gu am solo di créer ay foire pour mën a dem mais euh, ci fii fii fii Sénégal festival festival de la mode ak culture bu am solo fa kan da nga ko fay déggati danga ko fee dama len la ndax danga ko fee te du yoon organisé wuñu ko organisé wu man na maa koy taxawal bu sobe rabbi inshallah ma maa président wax ak mom taxawal ko fi parce que mënuma d'accord ñu ne fi am fi doole lool secteur culturel bi am fi doole di fi liggéey lu am solo ñu di ko seetaan te ñu waroon mën a jàppale président du jar campagne yenn yi du jar sax yenn yi am na loo xamante ne boo ko defee mu mu nekk ci bëtu nit ñi jarul campagne boo joxee benn leçon wane benn repère rek jeex na tàkk te defe naa ne boo defalee Samba Samba ay waa këram ñu ko entouré ci konamam ñëpp danañ bëgg ndax nañ naan ñoo ngay jàppale sàmba kon bu boobaa ñooñu campagne nga koñ ba yëpp campagne nga koñ ba yëpp mais boo jëlee sàmba seetaan ko ba sàmba di ñaxtu ah waa koñam du ñu mer kan moo la fa war a mën a taxawal kan moo fa mën a jàpp ni ngi naan jàppale ñu président parce que nañu war doxalee le defuñu ko. defuñu ko parce que mënuma d'accord zone ouest bi ñu nekk nii man ma fi nekk fii di fi politique di ci doxtu ci wala ci femmes yi may leen di sant di leen gërëm ndax gannaaw yàlla ak yonent bi jox nañ ma cër te ñu may déglu wante li ma mën rek laa ciy def mu bëri ay opposant lool lool lool lu mel ni zone ouest bi nga xamante ne ma fi nekk di fi politique di gërëm sama femme yi nga xamante ne maa ngi ànd ak ñoom di ci liggéey macha allah ñu jàppale ma loolu gunge ma dooleel ma bu ma ñemee ñoom la ndax euh, fu ma leen woo ñu ànd ak man di dem bu ma ne leen jóg leen ñu jóg vraiment ma leen di gërëm di leen sant zone bii di zone bu doy waar ñu war cee mën a jàppale président yaa ngi dégg ndax zone bi dafa bëri ay opposants ah. ndax zone bi Thierno Alassane Sall laa ngi fi zone bi Idrissa sa a ngi fi zone bi Ngouda a kana ngi fi zone bi Hadjibou Soumaré ngi fi ak ñeneen ñoo xamante ne mooy loolu ah zone bi ne fi ñu toog di seetaan ñi nga xamante ne ay quelques personnes la lu mel ni ay euh, Ousseynou Diouf mi may wax Ousseynou Diouf lu nekk lay def lu nekk lay def dafa wéet dañ koo toog seetaan ku xamoon Thierno Alassane Sall xam ka ak Ousseynou Diouf ba Thierno Alassane Sall demee dañoo bàyyi ci Ousseynou Diouf muy nafe ko ñu toog seetaan ko waruñu koo seetaan waruñoo seetaan Ousseynou Diouf ah ku Marème Diop si la mi may wax léegi Marème Diop si la Eh, ci no asan sal ku ko gisaan gis Mariam Diop Sy ya, la mais ke madame Diop Sy la tamit dañ ko tok diko setan ni muy naviguer lu ni mu jot am mu ci mu ci du yoon dañ leen ya wara gën leen ya sa day waar xolal ni ñu def docteur ndjay dañ ko sacrifier politiquement mais nak damay wax sa su ne la nga wara def boko ko fa def du feñ du am njëriñ moy indi surprise yooyu yëpp ngay dégg dafa am yoo xamante ne dañoo war a jàkkaarloog nit ñi waxtaan ak nit ñi def fa ña war a def man mënumaa nekk fii di acteur culturel di yëngu ci développement dem ba nga xamante di représenter le Sénégal di dem ci euh, festival bi ba bene nga xamante ne àdduna yëpp ñoo fay tase ñu may seetaan ba heure bi kon buñ ma seetaanee seetaan nañ président seetaan nañ président parce que lii may doxal ci jàppale président la bokk kon ñoom buñ ne dañuy jàppale président ba pare di seetaan seen bopp la ñu seetaan yenn yi xeex yi laa xam ne pour la Cees ñoo jàppoowul ñoo ñoo ñoo dëgguwul ci li ñuy dox ñoo booloowul yuuxu yuuxu rek lañ fi nekkee mais li ñu war a liggéey war koo dox defuñu ko defuñu ko parce que jàppale président war naa mën a fekk menuisier bee nga fekk nga xool ko ne benn rabotoir rek la am nga dollil ko benn kooku ci jàppale président la bokk ah nga xool kee nga xamante ne euh, moo ngi yore atelier euh, ñaari machine la am nga jox ko benn ci jàppale président la bokk kooku demal ne loo ko wax ci président mu def ko loo ko wax ci président mu def ko keneen ak keneen cordonnier bi la même chose ah damay laaj ndax instant politique boobu metti na ñu naan politique bi dafa métti opposé opposant yi duñu dara dañ leen gën a xam bunt bi di doxal lañu war a doxal ñoom ñu ne fi nag doxaluñu dara doxaluñu dara dara dara dara dara dara parce que man wax dëgg yàlla zone ouest bii nga xamante ñoo fi nekk man de mënuma la fay wax kan moo fi taxaw bu dëgër kan moo taxaw bu moo tax man la Sira Dia liñ ko yan dafa metti ci boppam dafa bari Sira Dia liñ ko yanee dafa metti def naa defa defa defa def ba xamatul fu muy jaar dafa am loo xamante ne nag doomu aadama rek la doomu aadama rek la donc am na loo xamante ne Kaja mënuñoo wax lépp parce que dañoo seetaan mënuma d'accord Thiès mouvement yi fi nekk di jàppale président ana leader yi ñu fi teg ana ñu fi am poste man de gisuma leen mouvement yi dañoo fi nekk di fi jàppale président di ci li ci daw ñun ñi nga xamante ne jàpp sàmm suñu gaal Ousmane dooy di ci daw lu ñu mën ruq bu ñu xam ne fii mën nañ faa jàppale président ñu dugg li jënt ko fuñu xamné ki ne ah mu ngay ñox ñoxé comprendre ñu waxanté ak mom mu comprendre lañu am mu tuuti ñu bari ñu def ko pour motiver ko kon da fay jaag ñu motiver ñu jappalé ñu ñene ñu suñu wet ñu am gëna mëna mën a am euh, confiance mëna jokk parce que xolal lima wax légui relé bi dafa war a ñëwaa ah. parce que ñom juma jang jaxaté ak ko la arda saw dañ leen jappalé won dañ leen jappalé won ñuy gën a góor góorlu di représenter Sénégal pourquoi pas ñu mën ñoo jàppale ñooñu ku leen seetaan noonu duñu toll fii in seetaan waruñu ñoo seetaan waruñu ñoo seetaan te Thiès gii nag dañ ñoo seetaan gisuma ci kenn kenn kenn ku ci jàpp te jaaduwul jaaduwul jaaduwul tey jaaduwul ëllëg waaw yaakaar naa ni mbokku internet yi ah dégg ngeen li sama invité wax Aïssatou Fall euh, xam naa ni message bi jàll na Aïssatou te xam naa ni autorité yëpp dégg nañ la te xam naa ni dinañ ci dinañ la jàppale bu baax a baax ndax nag wax na dëgg suñu réew la ñu am ñu nekk ay ndaw bëgg bokk ci ñi nga xamante ne ñooy participer si suñu développement réew je pense que am na solo lool lool nit ñi dégg li mu wax euh, jàppale ko ndax ñu am ndam fële ca de bene bi ñu jëm kontaan nañu loolu. Euh, xanaa ñu bàyyi Aïssatou Fall rek mu daal di wax dernier mot am. waaw Kaja maa ngi lancé appel à tout euh, képp ku dégg li may wax nga ñëw jàpp ci te xam ne Cees nga jàppale. waaw ñuy dem ci festival ba pour représenter suñu acteur culturel bi ñi nga xamante ne moom la ñu nekk représenter art bi artisanat bi nga xamante ne ci lañ nekk représenter culture bi nga xamante ne la nekk représenter tamit tourisme bi nga xamante ne ci la ñu dox waaw ndaxte euh, destination Sénégal bi ñun ñoo ko mën a jaay émergence bi ñuy wax ñun ñoo ko def donc euh, loolu kon ñoom war nañ cee mën a jàpp ñu émerger le Sénégal ñu émergence bi ci la ñuy dox di ci wax destination bi ci la ñuy dox di ci wax maa ngi lancé un appel à toutes les autorités thiessoises kilifa gu fi mënti nekk nga jàpp ci ndaxte euh, festival bi nga xamante ne moom la ñuy dem festival bi doomu Thiès lañ fiy demal ñu war a taxaw foofu mën caa dem noo xamante ne bu ñu ñëwee fii yéen ñëpp ngeen am fierté ngeen kontaan kon ku ci waaye mën a jàpp rek na ci jàpp ndaxte sarge euh, bi diis na lool mettul na lool mais buñ ci jàppoo rek lépp dina baax kon nag ñëw leen jàpp ci ñu jàppale suñu président ndax bu ñu demee suñu réew la ñuy waxal suñu réew la ñuy doxal lépp di sagu président donc war nañ ci mën a jàpp mu doon suñu suñu suñu suñu mbégte doon suñu fierte doon suñu sac doon suñu ndam pour ñun ñëpp kon maa ngi lancé appel ñëpp ma kenn du góor du jigéen di mag ak ndaw ñëpp nañu ñëw jàppale ma ci festival bi nga xamante ni dañ ciy ànd ak suñuy naataangoo jóge fii ci Sénégal di dem ba beneen représenté foofu euh, la Sénégal ak ci yeneen réew donc ñu ñëw jàppale ñu bu baax a baax ndax soxla nañ trop soutien bu ñu jàppale wax dëgg yàlla ñu dem merci beaucoup ci wa Thiès info yi nga xamantene wax deug yalla yéen a ñuy topp di xam ci activité yi ñu nekk ba tax na nga yëg li melni nga ñëw gisanteeg ñu euh defal ñu ak ñun émission pour xam ci suñu tollu way vraiment tamit loolu rafet na ndaxte bu fekkonte ñëpp doon ñu def ni rek dinañu neex ndax Thiès info dafa dañ na lu la réer rek seetu ji ko foofu vraiment yéen ngi dox ci actualité yéen ngi dox ci li suqal askan bi yéen ngi ci dox li doxal askan bi vraiment ma ngi leen di gërëm di leen sante di wax ne seen taxawaay rafet na lii nag defe naa ne dafa neex ci xol vraiment na ñëpp daal ñëw jàppale bi vraiment muy ndamu Thiès ndamu Sénégal ñëpp daal macha allah di leen wax euh, merci beaucoup merci. Aïssatou Fall ñu ngi lay ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ndax ñun defe naa ne fierté la fierté saa su dee ñu lay dalal ci suñu suñu biir info Thiès info ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax te di la wax ne aussi bonne chance. yal na yàlla yal na yàlla leeral lépp ci barke Seydina Mouhamed ndax doomu cees nga doomu Sénégal nga doomu Afrique nga te fierté bi fierté nga si suñu réew ndax gis nañu macha allah jëf yi rafet yi ngay def tey moo la an ndax man damay faral di wax ni nit ki ci loolu lépp looy liggéey rek nan nga ca fexe jël pay te yaakaar naa ni yow yaa ngi ci yoon bi kon gàcce ngaalaama yal na la yàlla taxawu ba lépp nga dem si jàmm ak salaam dikkaat ci jàmm ak salaam Thiès seen site Thiès Info lii la leen indiloon tey ñu leen di sant yéen itam di leen gërëm bu baax di leen jox dig daje beneen yoon ak seen beneen invité seen site Thiès Info tey nag ki ma solal comme d'habitude kooku mooy ay Aïssatou Fall Diaraby Couture ah saa su ne bu ngeen saa su ne rek mooy jaar fii def yu xeetu baax baax yi ku ci soxla li may faral di wax su toujours rek ñëw leen fii Sofraco ah quartier Sofraco Euh, nekk fii Thiès benn dëkk ñaari gaar yu baax xeetu baax baax boo bëgg Aïssatou Fall dina ci taxaw incha allah kanam gi nag maquillage bu baax bi ki ci jaar mooy Daba Daba tam salon wam nekk fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nekk Sofraco de numéro téléphone bi di deux cent vingt 26 vingt 227 vingt 25 ku bëgg Euh, xeetu baax baax day def pédicure def manucure def euh, lépp li nga xamante ni soins de visage lépp li nga xamante ni day taaral jigéen rek daba da koy def kon maa ngi leen di jox dig daje beneen yoon ak seen beneen invité jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.